ausubillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw buñ sante yàlla julli ci seydina muhammad mbokk yi ñuy seetaan fii ci Sahel Network TV ci Independence Drive Banjul ànd ak ko ak seen mbokk al oustaz Cheikh Tidiane Gueye ak Essa Mbaye ci lan waxtaanu koor fa tabaarakallahu boobu ba léegi ñu ngi ci bunti naafila yi ci ngëneeli koor gi lan mooy ngëneeli naafila ci biir koor gi waaye nag balaa ñu sori ñu gërëm ñi nga xam ne ñoo jàpp ci mbir mi di alaaji Modou Touré Dabo division development fund ak suñ goro suñ soppe alaaji Sirif Tambédou mi nga xam ne ñoom ñoo moom Travel Agency waaye di goro ci kër gi fa tabarakallahu ak Amadou Jigo Jigos Construction ñoom ñëpp ñu ngi topp programme bi di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax di gërëm képp koo xam ne yaa ngi seetaan programme bi di gërëm it al imam akbar alaaji alim Thierno Maska di gërëm alaaji Mouhamadou Tafsir Gueye ak fa tabarakallahu jamiyatul tijaaniya fi hadratil malikiya ahlu Tiwaan fédération ak jullit yi nga xam ne ñépp ñu ngi topp programme bi sëñ Cheikh yaa ngi woon ci ñaar fukkeeli buntu ak benn ci ngëneeli naafila ci biir koor bu defee rek ma bàyyi la yaa askan wi nga gën a yaatal tabaarakallaahu mbokk yi ñuy seetaan waxaat beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi. ñu nuyooti leen fii nga xam ne lañ leen daan nuyoo ci online bi nga xam ne tabaarakallaahu muy Sahel Network TV. man seen mbokk seen xarit seen soppe. Cheikh Ahmad Tidiane Guèye ak Alxaaji Issa Mbaye ñu fi waxtaanee nag waxtaanu koor waxtaanu koor nag tabaarakallaahu mooy ni ngeen ko xamee rek ak yi jot a jàll ci ay actualité yi nga xam ne tabaarakallaahu yi xew nga xam ne tabaarakallaahu lépp lu ñuy wax rek ñu ngi fexe diko sukkandiko fu wóor nga xamne ne tabaarakallahu muy xadiisu sayduna muhammad moom mi nga xam ne maa yantixu anil hawaa in huwa illa waxin yuhaa yonent bi lépp lu wax lu ko yàlla wax wax loola du wax ci nafsu bakkanam taw du wax ci caaxaan nga xam ne tabaarakallahu na ñaar fukkeelu fan ba tabaarakallahu nga xam ci laa leen doon nettalil ba wax leen ki nga xam ne moo daggoon papa ja ngir nga xam ne tabaarakallahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne kon yàlla amul ku yonent bi yàlla soppul ku dul rasulillahi yàlla soppuloo nu ku dul yonent bi yàlla bëggloo nu ku dul yonent bi yàlla wax na sax waa àdduna yépp suñ bëggee àdduna dox suñ bëggee àdduna avancé buñ bëggee ñu génne ci mboolem natt wala problème nañ dox doxinu sayduna muhammad nañ fexe jëf jëfinu rasulullah nañ fexe xool xoolinu sayduna muhammad nañ fexe xool la yonent yàlla muhammad nekkoon ca ëttam ba nekkoon ca keparam ba nekkoon ca saalam ba ñu fexe indi ko ci suñ saal yi indi ko ci suñ ëtt yi waaye indi ko ci suñ biir xol yonent boobu nga xam ne tabaarakallaahu bàyyi ak doom bu kii contré morom ki ndeysaan tabaarakallaahu abubakar sadiq mooy xaritu yonent yàlla Muhammad ba dafa mas a toog ndeysaan moom bi mu tuubee fokk na baay ji euh, doom ji am na doom boo xam ne tuubagul mu ne ko papa ndeysaan xare sàngam dajee nañ fa waaye bi ñu fa dajee daal tabaarakallaahu am na bis maa ngi la jekku mu ne ko hmm. ah doom nga xam ne nekkoo si dëgg rek waaye bu doon man la maa la jekku konoon yow waxatuñ la hmm. sama waa ji sama njool mii hmm. nga xam ne ku ko kontul wallahi ak koo mën a doom mu suur la jàkkaarloog sama borom subhanahu wa taala kon yonent boobu nga xam ne mom nak ci mom lañu waxé nga xamné ne ay waxinam ay diglem ay tabaarakallaahu jaar-jaaram nga xamné koor bu xewaan lépp luy xeetu nawaafil yonent yàlla Muhammad daka daan def da ci daan sonu di ci ñaaxé di ci xiré kon nak yow mi naafila yow mi nga xamné kon nak nafila won nga ñaar fukki fan bi yàlla jox na la yoolu ñi dé ci jihad ak yoolu ñu bax ñi بما واخلا نا سافا مام سونو سيرين با شيخ سيراج مالي بايتام بوبو دي غاي ورانتي خدار موي كي اندون موسى سا گيدج اند موسى نكو موسى نان ديم خدار دو يوننت موسى يوننت لا ني نه موسى ليكو اندي لولو اخ مغا الاجي سامي لا واراتي ولا خطبه بو خطبه كا تانغ مون نخ ام نكو امي خام خام نيما امي خام خام waxe lool rek yalla bëgg ko wone wa fawqa kulli fi ilmin boroom xam-xam boo mën a doon loo yéeme yéeme loo mën a mën a mën a wax am na ku la féete kaw am na ku la gën a xam est-ce que yàlla ne Moussa ah, kon fu nga tollu de danaa la boolee am na sama benn jaam demal ci tefesu géej gi da ngeen daje ngeen ànd ñu dajee moom waa ji moom Moussa yàlla teg jox na ko teg xese bu gudd bi ñu àggee ba àgg mu dajeeg waa ji muy Xodar ah, gis Xodar daal tabaarakallaa gis mu def ko def yu yéem gis ne mu lekk ci benn jën hmm. jën wi pare mu jëlaat jën wi dóor jën wi ci géej gi di dem mu gis daal nangam mu benn xeeran fa xudar jël na xeer wi dóor ndox mu neex génn mu naan jox Moussa mu naan Moussa ne ko est-ce que du ma la topp ñu ànd ba ma ànd ak yow ba baara ma jàll ñu jàllaale féeri bi mu ne ko ah waaye dinañ ànd de waaye lenn mooy paas ci gaal gi hmm. maanaam paas bi lenn la ndax xudar bagage mi la jël nii takk rek teg ci géej gi ne musaa toogal Moussa teg bagage mi toog ñu toog di ànd ci gaal gi teg ci gaal toog ci gaal gi mbokk di dem mu ne ko nag paas bi lenn la bu ma laaj ñu dema dem ba ci yàgg rek xudaar ci boppam gaal gu rafet hmm. di la yóbbaale xudaar jël gaal gi bënn ko bi mu bënnee gaal gi tabaarakallaahu Moussa mënu ko muñ hmm. ne ko ah ndax da yàq gaalu jàmbur boo xam ne yow dañ la yóbbaale mu ne ko waxuma woon ne bu waxuma la woon ne bu ma laaj <laughs> Moussa ne ko wax niñ dem jéggal pardon sorry hmm. ñu dem ba ci yàgg jàll nañ tefes bi fi jàllee baara non rek mu daje ñaari xale yu fo xodar mbaj ben xale ba xale ba dé mu ne ko la aqatalta nafsan sakiya ndax da ngay ray bakkan bo xane defal dara mu ne ko waxuma loolu ba ma laaj ba ma laajatee yëf yëpp ñu dem ba ci yag booba sonu nañ xif dem ci fofu baara wala dem ci ben ben kër ben mir ñaan leen luñ lek pour na xif nañ. gaay yi ko ñun amuñ luñ lekk. xudar romb mir seen miru kër ñi ñaan lek ñu bañ de xudar miir baa ngi bëgg daanu xudar na musa Ka jàppale ma. Moussa ak Xodar jàpp muur ba puusaat ko ba miir bi correct ñu defaraat ko mu ne ko yow ñii ñu ñaan leen lekk ñu bañ nga di leen defaral seen miir bi yow lii mooy lan mu ne ko yow nag fii la ñuy teqale ko. Mhm. waaye nag ci la ko wax na ko gaal gi ma na ñi ko moom ay jirim lañ te ci gaal gi lañuy dund te am na buur bu saay-saay bu fa nekk su leen gisee dana nangu gaal gi ma bëgg gaal gi mucc xale bi ma rey ñaari woy juróom yi ñu baax lañ. waaye xale bi dafa nar a boni te bu ñu dundee dana fi bon ba dugal woy juróom yi safara ma bañ ko mu dee pour mu muccal ñële moom dugale àjjana mm-hmm. mu ne ko néeg bii dafa am xale boo xam ne jirim la mu ngi ci biir yaayam juddagul waaye dafa am ci suuf woy juróom daf ko fa dencan ndonoom am na ñu ne ndono loolu nag boo demee ci tafsir yi wax nañ ci wax yu bëri ñi ne turu yàlla la ñi ne nangam la waaye dañ ko gas foofu bu miir bi daanoon dootuñ xam fan la loolu tax ma defar miir mu ne ko fii nag la ñuy teqale ko man maay xudar xudar moomu nag gaa yi di yonente naan yonent la ndax ku dul yonent manta gagloo ko yonent mm. ñu ne yàlla doon jàngale alaaji Maalik nag ci dégg jamono ak am xam-xamam mu ne wa fii wilaayatihi ñi ngay wax ne wëliyu la mm. aw kaw nihi malikan ñii naan malaaka la mm. ñii naan yonent la alaaji Maalik mu ne ca Tiwaawan yow alaaji Isaa Mbay buñ la laajee xodar yonent la wala malaaka la wala nangam mu lu xul waxal rek ne innahu salihun waxal ne ku baax la tus ndax danañ la wax ne wax nga dëgg toxtaram yi danañ la xormaal kooku loolu la wax foofu kooku ca ñaar fukkeelu fan kon yow mii naafi la ci fukkee ñaar fukkeelu fan bi ak benn banaa lahu baytan fil janna min an nuur yow mii naafi la ci ñaar fukkeelu fan bi ak benn yàlla tabaxal na la kër ci aljana këru leer. kër goo xam ne du ay birig wala yoo xam ne kër gi këru leer la yow mi nga xam ne naafila nga ci ñaar fukki fan bi ak benn bi yow mi nga xam ne naafila nga wa fi laylati saaniya wa saaniyat wa asruna jaa yowmal qiyaamati aminan min kulli xammin wa hammin foofu nag xam naa daanaka foofu moom bu ko naree leeral rek foofu la ñuy ñëw yem yow mi nga xam ne naafila nga ci ñaar fukki lu fan bi ak ñaar hmm. mu ne yow da ngay ñëw yomal xiyaam te booy ñëw da ngay dikk aminan da ngay doon ku ñu wóolu mooy da ngay doon koo xam ne ku wóolu sa bopp nga ku am sécurité ngay doon min ku kulli xammin ci bépp njaqare ak bépp tiitaange buy tiital doomu aadama yow danga yow mu ngi mel ni rek. mucc mucc waaw yan xali wa yanqalibu ila ahlihi masrura mu ngi mel ni rek ñu ñu jógee Sahel na doog bi rek war a dellu ci suñ njaboot. Hmm. nu ñuy kontaanee bu ñuy daw yàlla na bu poos bi am dépense ba nga am loo jënd ba lépp ko rek hmm. ni sa xel di dalee nga kontaan buñ ne hmm. bàyyi ñëw na nga am loo joxe ay buñ ne bàyyi ñëw ne te amoo loo joxe. yan nañu yàlla bu sën. bu ko defee kon ah, yow mi nga xam ne yaa naa fi la ci ñaar fukkeelu fan bi ak ñaar bi yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yoomal xiyaam sooy ñëw tabaarakalaaw li ngay dégg yow yomal ak tamliku bisu bëxëñ bëxëñ ba ilaawa yaay yooyu yuuxu ya dawante ya tiitaanga ya yow mucc nga ci yow da nga ñëw rek nga doon ko nu wóoluloo ci bépp njàqare ak bépp tiis wa isaa nufixa fi sóori fala ansaaba yawma isin yatasaaluna baynahum yawma isin wala yatasaaluna kon mooy bés boobu yow mi nga xam ne yaa naafila ci ñaar fukkeelu fan bi ak ñett bana allahu lahu madinatan fil janna bële nga xam ne mooy ñaar fukkeelu fan bi ak benn bi hmm. dañ néeg lañ la tabaxaloon ci néegu leer fii nag yàlla dalay tabaxal dëkk hmm. ñaar fukkeelu fan bi ak ñett bi hmm. yow am nga dëkk dëkk mooy comme nga ne Serekunda tout yàlla tabaxaloo ko biir àjjana hmm. te yaa nga kóolooli suba yaa nga fële suba yaa nga fële suba yaa nga fële kon loolu yàlla mu ngi koy defal ñi nga xam ne tabaarakallaahu ñooy la ci tabaarakallaahu weeru koor kon foo xam naa ne fii ci ñaar fukkeelu fan bi ak ñett bi laa ñëw nag teg suma baaroom ñu joxe lii rek ba dig daje incha allah rabbi ñu fas yéene tàggatoo ba beneen yoon incha allah. jërëjëf sëñ Cheikh naa di la sant di la gërëm ci leeral gi waxtaan wu leer wi waxtaan wu neex wi wa tabaarakallahu lii moo taxoon ñu tànn la ici la ci programme bi wax dëgg yàlla ñi seetaan ñu ngi rafetlu sa waxtaan lool lool lool ndax wax dëgg yàlla ñu nekkaa ngay oote. di rafetlu sa waxtaan am na ñu ma laaj sa numéro sax ndax mbir mi ni mu gàttee pour ñu mun laa oo nga gën a leeral. Ah, kon lii yëpp wax dëgg yàlla ah, ah, yiw la. Mhm. kon di dellu di sant borom kër gi rek alaaji Aboubacar Bathily ak soxnaam soxna Oumy Bathily mhm. tabaarakallaahu suñu xarit suñ soppi alaaji Idrissa Mansa Dieng si soxo mhm. waaye di dellu it di gërëmaat alaaji Modou Touré Dabo ci ci ci ci li moo baaxee jaami yàlla yi. alaaji Sirif També du mi nga xam ne goro la ci kër gi alaaji Amadou jigo mi nga xam ne fa tabaarakallahu moom it xarit la ñii ñëpp ñu ngi topp programme bi di ko lu lool lool lool boo gisee nag ñuy def lii diine moo leen ñor ndax lii programme yi diine la te saa yu ñu ko déggee rek ootee kon nag diine moo leen ñor mm-hmm. kon baax na it ñu nit ñu feeñal loolu fii mm-hmm. comme ni nga ko waxee rek kuy def lu baax am na ñoo xam ne sax bëgguñ ñu wax ko. wallaahi waaye rafet na pour ñu wax ko. Mm-hmm. pour ñu am ay toppandoor. tabaaraka kon sëñ Cheikh ñu ngi mm-hmm. gërëmaat di mm-hmm. sant imam ratib imam Alioune Thierno Maska alaaji Mouhamadou Tafsir Guèye. ah di gërëm it soxna ya ca kër ga soxna Aida Tambédou soxna Maam Guèye Bangoura suñ yaay Adja Hadi Yaaka Fay fa tabaarakallaahu ñoom ñëpp ñu ngi toppa programme bi du ko rafetlu xanaa ñu jox la rek nga tëj ba beneen yoon insha allahu rabbi. tabaaraka suñ bi Wilfred ñu ngi koy sant ko ci taxawaayam. wax dëgg yàlla nit ku dal léegi-léeg sax mu nga gis ko muy jaayu xam naa mbir mee ko yóbbaale rek waaye fa tabarakallahu naan jox la rek nga tëj tabarakallahu ni ko waxee ñi nga gërëm yépp man sa làmmañ mooy sama làmmañ waaye kontaan bu baax ci ñi nga wax noonu alxaaji Modou Toura Dabo euh, nga xam ne tabaarakallaahu li nga wax noonu rek euh, lu baax ya ñuy def mm-hmm. soo gisee xëy na di ko wax li ñu li ñu nettali ci ay jëfinam mm-hmm. saaba la mm-hmm. am na daraja yi yonent bi toog na gexe di ko ñaanal ba fajar xam nga lu ko ko may alal jum joxe ci lislaam kon nag ñi mu mel nii bu ñu leen di tudd it ci foofu lañ koy tibbee rek yonent yàlla Muhammad dafa am xare bu muy wàcc xare bi jafe lool war a am wàccaay ci ay alal ci moyen ci dépasse déplacement ci lépp Ousmane préparé yépp bettee ko ko kër Rasulullah yi dafa taxaw ne Ousmane mënatut a def yàlla gannaaw jëfam ji lu yàlla xool mhm. yàlla na yàlla gërëm Ousmane kon alhaaji Modou Touré Dabo moomu nga xam ne ak ñoom tabaarakallaahu euh, bàcc li ak tabaarakallaahu Ismaïla Sirif Tambilou Sirif Tambilou alaaji Amadou Djigo alaaji Amadou Djigo ak ñëpp rek ak mhm. suma waa dëkk yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jéggalu rek ngeen ñaan yàlla rek te ngeen topp online bi Sahel Network TV dana dem ba doon tele ñoo ngi yéen live insha allahu rabbi bu soobee yàlla والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله